jour jour euh, euh, premier jour bi. Mhm. premier jour bi en fait man je pas pu accéder au niveau du tribunal. premier jour bi def naa Stèle Mermoz def naa yenn quartier yi nga xamante ne itam ñoom moo doon am donc euh, blessure yi ma gis Stèle Mermoz j'ai vu benn journaliste boo xamante ne je pense que West TV la. Euh, je pense que c'était aussi caméraman la je connais itam quelqu'un d'autre que je connais personnellement parce que euh, ki nga xamante ne euh, moom moo blessé woon ba ñu teg ko noonu ci suuf kooku journaliste West TV la woon maintenant le rest Euh, mooy euh, je connais un autre Malick Malick Touré de de de Dakar Instant par contre moom euh, lacrymogène la jot directement ci tànk bi je pense que même le SYNPICS gis nañ ko Bamba et tout gars gis nañ ko mais la presse a été brutalisée ce jour-là parce que itam faut le dire la vidéo a circulé ñëpp gis nañ ko quand le préfet Euh, qui est l'autorité de la euh, de, de Dakar euh, se se permet de dire devant tout le monde gazez-moi la presse euh, ça veut tout dire donc après bi affaire yi di am parce que le journaliste de West TV euh, Malick Touré ils ont été blessés après que le préfet ait donné ce, ce, ce, cet ordre-là et c'était devant pourtant à travers ces mêmes images dañuy gis que ni euh, les forces de l'ordre essayaient quand même tant bien que mal pour dire que ni non yéen duñ leen laal en tout cas moi j'ai vu ces ces ces images là cette partie bu ñuy waxee ni mm. non yéen bokkul leen si duñ leen laal et mm. malgré tout il y a d'autres qui ont euh, qui ont répondu euh, wala bokk euh, exécuté voilà waaw parce que xam xam nga aussi euh, il faut saluer le professionnalisme de la gendarmerie sur l'ensemble des événements de mars si on peut l'appeler comme ça euh, dans un premier temps je me souviens gis nga bi ñu ñëwee ci ruelle bi nekk bi biir Mermoz force de l'ordre yi bi ñu njëkkee tiire après presse bi ils ont eu le temps de se positionner derrière les forces de l'ordre comme comme comme il est il, il recommandé comme il est d'usage dañoo bàyyi képp ku yor carte de presse on te filtre tu passes bi ñëwee ci stèle bi itam à plusieurs reprises même bi ñuy wàccee oto bi wàcc leen oto bi wàcc leen oto bi wàcc leen bi même à plusieurs reprises euh, les les forces de l'ordre n'ont pas été brutalisées mais quand le préfet donne un ordre aussi on peut pas en vouloir des gens qui exécutent cet ordre là on peut pas mais euh, préfet moom moo ni gazez-moi tout le monde même la presse vidéo bi mi ngi circulé c'est notre confrère Bour News euh, mm-hmm. moo moo moo moom moo ko jël e qui c'est quelqu'un qui a fait un travail exceptionnel parce que loolu wane na lépp loolu wane na lépp maintenant nag euh, force de l'ordre di gaañu na euh, nos confrères plutôt gaañu nañ Stèle Mermoz tout le reste des événements itam am nañu gaañu y en même qui ont été pris à partie par par, par la par les manifestants Mhm. par certains manifestants disons. et maintenant au au lendemain ak euh, bi ko convoqué waatee et tout ça. Mhm. est ce que mën nañ ñëw ci lool parce que euh, je pense que bu ñu bu ñu demee rek ñu daal di koy def li nga xam ni euh, chronologiquement. Mhm. am na si ñoo xamante ni ñàkk nañ seen bakken yan jour ak ñan la déjà. ba jamono ji ñi ngi ne vidéo yi moom je pense que maintenant. gis nañ ci yu bëri yoo xamante ne balaa sax ñuy daal di ñëw dugg ci mbirum enquête parce que enquête moom. fu mu jaar am am na ci vidéo yoo xamante gisandoo des gens qui tirent sur des manifestants pas plus tard que ce matin man maa ngi gis boo xamante ni moom kooku ci gannaaw oto bi la nekk tiire koo xam ne sur mm-hmm. le champ euh, froidement mm-hmm. genre seen yooyu fa yow fekkee nga ko malheureusement oui ku ñu rey nii waay parce que euh, parce que obélisque obélisque euh, je pense qu'il s'appelle Barry ou truc comme ça euh, c'est des choses yoo xamante da nga koy dund mën nañ ne benn yoon parce que man quand je suis venu à l'obélisque d'abord j'ai entendu am na ko ñu rey am na ku ñu rey am na ku ñu rey j'étais du côté de de la caserne j'ai fait le tour bi ma ñëwee après euh, j'ai eu le temps de voir certains de ses amis et après dem naa ba gis ko je peux pas revenir sur les détails parce que itam dafay day xaw a compliqué mais quand même euh, c'est quelque chose d'assez difficile parce que même dans le théâtre des opérations nga gis euh, nit yëkkati fetal mu armé tiré c'est choquant mm-hmm. waaw c'est choquant d'autant plus que nous on était en première ligne hein. donc du man kese ñu bëri la on a vu l'intervention euh, déjà euh, des gens yoo xamante ne je foofu moom je suis très catégorique je vais pas dire que c'était des nervis je vais pas dire que c'était des forces de l'ordre parce que je ne sais pas mais sur le théâtre des opérations j'ai vu des gens daw ba dugg biir Médina yëkkati fetal tiré daw ça je l'ai vu ça je l'ai vu et. ils étaient pas en tenue. ils étaient pas en tenue xam mooy li ma la wax mooy euh, l'usage veut que force de l'ordre même quand tu es en civil booy intervenir ci euh, manifestation tu as au moins un brassard tu as au moins un brassard. mais on peut pas voir des gens ñu yor fusil romb la xamoo kii manifestant la xamoo kii leneen la. Mhm. ça pose problème mais su ma ñëwaatee ci li nga xamante ne mooy ñu ñu identifier comme étant des membres de euh, des forces de l'ordre ñoo xamante ne gis nañ leen ñuy tiire loolu am na. am na am na obélisque euh, am na ay ailleurs image bi ngay wax bi ça s'est passé euh, au Parcelles Assainies ñëpp gis nañ ko. même ay waaye euh, parce qu'il est mort sur ko coup place obélisque je pense que je suis pas un, un spécialiste euh, euh, de de de ça mais euh, man pour man bal blanc bu traverser rek man sama xel day ñaaw personnellement j'ai pris de photos yoo xamante ni c'est des gens yoo xamante ni ils ont reçu des balles bal bi dafa romb dafa traversé c'est-à-dire mu jël ci cuisse droit ci kuise bi génnee ci beneen bi donc man lu ma mën a wax le jeune de euh, à Colobane aussi euh, jeunes yu bëri recevoir nañ ay bal parce que Colobane aussi bokkoon na si yu gënoon tàng. foofu Colobane mooy la